salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd benn ànd ñun ci seen émission tegtal di wax ni seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu la miñ seen taxirlu waral suñu farlu tegtal du tay mukk du bàyyi mukk seeti leen koo xam ne njëriñ leen ci seen tudd ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal indil leen koo xam ne ko doon doyal ci moom doon doyal ci moom ndax lan ko lool ci tegtal ñu min ko lool ci tegtal ndax day wax xam-xam koo xam ne que dafa gëm yàlla te ci gëm boppam jiitalul xaalis ku ko nar a fontoo ci xaalis mu ne la seetil keneen ku ko nar fontoo ci xaalis mu ne la jëlal sa xaalis demal te tamit respecté na liggéeyam dina ko teg ci GP dina dina ku ko teg ci yoon daal kooko di kan borom ñaari tur la wala ñetti tur yi seex borom produit yu baax yi bu la neexee nga bindal ma ko ci écran bi bu la neexee nga bindal ma seex Konte ñaar yëpp siiw na kon seex la ak borom produit yu baax yi ak seex Konte euh, seex borom produit yu baax yi seex Konte. Euh, yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission looy nuyoog àdduna wër nga këpp wër nga këpp bi lay seetaan ak tur yi ban moo la ci gënal Cheikh Konté ak Cheikh borom produit yu baax yi ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum waa Tektal TV ñu ngi leen nuyu. Mm-hmm. di nuyu seen téléspectateur wala seen internet yi leen mm-hmm. di suivre. di ñu képp ka nga xamante ni yaa ngi jëflante ak ñun wala nga mas a jëflante ak ñun macha allah. di nuyu ñëpp waa Sénégal waa biti réew mm. di nuyu ñëpp macha allah wa dëgg yàlla fépp ci àddina bi parce que ñëpp ñu ñuy bari na ñu ñuy jëflanteel ñu ngi fépp ci àddina bi mm. wax dëgg yàlla ak ci Afrique bi daal macha allah ak ci Europe bi partout dans le monde mm. di nuyu waa Sénégal it fàttewuñ kenn macha allah wa dëgg yàlla di la nuyu yow di nuyu say ki bi nga àndal yëpp macha allah ak waa Tektal TV yëpp laaj nga nag ne ma ba sama tur yi ban mu ma ci dégg la xëy na ku nekk boo sañoon tour bi la sa baay tuddee mm-hmm. moo lay dàqal ci àddina te it moo ma mm-hmm. dàqal waaye tur ba nga xamante ni kat ay nit ñoo la ko woowee ndax def lu baax wala jaay lu baax mm-hmm. lépp ci xam-xam tamit dañ koy nangu macha allah bu ñu waxee cheikh loo si teg borom produit yu baax yi produit yu baax yi li ko waral ay garab xam-xamu cosaan lañ jël di ko composé yenn yi muy faj nangam yenn yi muy def nangam léegi nag ñu tënk ko rek tuddee ko borom produit yu baax yi loolu it macha allah ak sant la daal. sant bu ma ci nit woowee rek macha allah xayrun. wax dëgg yàlla adresse bi moom ak eh, identité bi benn la. wax dëgg yàlla ñu ngi nuyu ñëpp tabarakallah macha allah daal. macha allah euh, Cheikh borom produit yu baax yi kon mais turam dëggantaan Cheikh Konte la Cheikh Konte bu ñu ko bindee K la wala C. K as la xontay la. xon Konte. waaw mhm. am na ñu koy lire Konte ba tey. Konte waaw benn bi la daal. benn allah. jeex na kon euh, bindal ma ko ci ecran bi rek boo ci bind bu la neexee sax bàccal ma ci ñaar yëpp sax mooy lool bu baax a baax a baax euh, Cheikh borom produit yu baax yi. Mhm. gis na ne fii Sénégal toll. Mhm. maanaam nit a ngi dugg ci dara après di ko rëccu. Mhm. nit dugg na ci dara après dem ba ci biir gis ne bu teewoon gënoon na. léegi ci wàllum listixaar lañ bëgg. ak seet. comme daanaka loolu mooy xam torsu bi lay nital ci lépp looy dugg nga maayam koy takk jabar. kuy jënd oto kuy tukki kuy def dara mu xool ba xam lii baax na wala baaxul gën na wala gënul. Mhm. ku bëgg loolu ci téléphone. Mhm. loo ko ci mënal. Cheikh su ma sañoon sax duñ ko waxtaanee. Mhm. parce que xëy na lépp loo wax rek gars yi nañ ko ba noppi. ba bàyyi. wax dëgg yàlla léegi sax jamono gi toll na ba nga xamante ni sax boo ne damaa mën a seet wala boo ne damaa mën sax ñu ne yàq ñooña ñooyam fekk ñëpp yemuñu daal. waaye su ma sañoon sax du <laughs> si kii daal. Mm-hmm. waaye bu dee wàllu seet wala listixaar mm-hmm. bu ko nit mën a tudde lu ko nit mën a woowee rek wax dëgg yàlla képp ku mu yitteel nga bëgg a dégg lu leer wala nga bëgg a xam lu leer nañ incha allah ba mu leer nañ lu bokkut ay ay layam-layam ak làmbatook yooyu mm-hmm. fii ngay ñëw fii ngay ñëw waaw dañuy jóg ànd loolu adresse daanaka wax dëgg yàlla man ñi seetal ñi may booleeg ay nit ak nit moo ëpp wax dëgg yàlla macha mm, allah parce que ko wax ba wax loo xamante ni leer na la kii xamu la mosoo koo gis xamoo ko sa aadama ak awa dalaa woo rek numéro téléphone am rek nga am ak turam bi ko tuddee mm-hmm. ak turu yaayam man ku may seetal sa tur dëggantaan damay insister tur dëggantaan laay wax ak sa turu yaay turam dëggantaan ak santam parce que tur dëggantaan bi la sa waaju tuddee bu dee jullit nga mm-hmm. mu tuddee la la xar Mm. xar moom dafay am lu muy lu muy lu muy lu muy def ci doomu aadama bi mm. xar boobu sacrifice la mm. tuur deret la tuur deret la des fois sama dégg yenn sëriñ naan tuur deret baaxul sax damay ree fekk ñooñu xamuñu lan la xamuñu lu bari bëgguma sax leeral si affaire tuur deret sax su boobaa dinaa leeral ñu bari xam ak yooyu waaye jaru ko ah, ah, waaye ku nit ñi buñ xamul si njëriñu tuur deret ah, xam <laughs> jaru ko daal du xaaj na sax peut-être ñenn ñi bëgg ma def ko waaye ku xamul rek xamuloo daal masha Allah li anglais bi naan if you don't know you don't know macha allah waaye l'islam fu mu toll tout deret fa la ko la ko àggal waaw loolu nag boo leen dawalee seen xel nag di nga a xam lu bari li ma expliqué kon daal bu ne la rayal xar sara xel wala nag jàppal ne bu sëriñ ba du trian rek loolu baax la loolu lu baax la waaye loolu sax waxuma sax si sëriñ bak yooyu mm, noonu wala mm, mm. bu la neex nga defal ko sa loolu xanaa leer na mais nag loolu leneen benn kii rek mi ngi noonu mooy. mais daal ci wàllu listixaar seex. Mhm. képp ka nga xamante ñoo tu tufli sa tur ne tur sàngam nga tudd tufli ko sa nopp bu dee julit nga. Mhm. tur woowa a la topp tur dafa am ay rawxaan. Mhm. dama seet gi ma seet seetu rawxaan la listixaar rawxaan laa def. naa xam sa tur dëkkantaan ak sa sant. ak sa sant tur boobu nag yor naa loo xam ne danga koy liggéeyee si mbiru seet wax dëgg yàlla. ba mën a xam mbiri ki lan exactement ci nekk ak yeneen nangam. ba démb rek mosu mujj kooku ne ma xanaa da ngaa xam diw diw mi ma ne koy am xaw ma ko yaa ma jox aw turam te am mbokkam la moom mbokkam la rek ah, da nga tuddaale tur ah ma ko tur bu jigéen moom laa njëkk a seetal ba pare sa suba ah. ko beneen xale bu jigéen hmm. ma ne ko nangam sangam bii la nekk nangam sàngam bi nangam sangam bi nangam sangam bi wax kay lu bare bari si loo xamante nii ci ci jikko xale bi ak yu bari daal yoo xamante mënu ma ko expliquer macha allah wax dëgg yàlla xam nga yooyu moom sax nit ñi moom yàgg nañ ma ci xam yooyu du dara yooyu ba ñuy foo lañ ko doon jàng wax dëgg gis ñu ci sant ba ñuy gis na ma yu bari moo tax bëgguma ji ma fa sax di ci contribuer bu baax a baax di ci sori quoi mhm. moo tax mais li mu bëggoon xam seet bi ak listixaar bi benn la ak et puis maanaam ñaata temps lay diire da ngay fanaanoo yow wala da nga naan ko maa ngi lay rappeler wala da nga koy audio wala man seex fanaanoo ma kenn fanaanoo kenn hmm. man naa bañ am jot nag

xam nga wax dëgg yàlla macha allah nekkoo ci benn nit daal waaw nekk mu si benn nit daal maanaam mm-hmm. wax nekk mu si benn wax dëgg yàlla macha allah daal waaye képp koo xamante daal da nga bëgg seet gu leer nañ goo mm-hmm. xamante ne nii bu la neexee ñu vocal la ko wala mm-hmm. neexee ñu woo la wax dëgg yàlla macha allah daal wax dëgg yàlla kon jëlal numéro bu baax a baax dafa 78 397 65 93 78 397 65 93 numéro bi nag da ngay insister bu baax ci whatsapp bi foo messager mu yéex a tontu dollil mais yàgg-yàgg dina la tontu ak lu mu bari bari dina ci waslu àq bu baax a baax a baax euh, bu dee da bëgg a ñëw nag mu ñëw aslem aslem un école Lyon bu ñëwee bu ñëwee bu laajtee aslem un école Lyon laaj kër Cheikh ñu wan ko ko incha allah bu ñëwee aslem un école Lyon rek fu mu laaj kër Cheikh baax yi. Euh, mhm. Cheikh Konte ñu wan ko ñu ko ko bu baax a baax a baax kon daal euh, loolu moom lu leer la boo xam ne que daf koy lijjanti ci wàllum seet ak listixaar ku bëgg dugg ci lenn ak euh, lu man di doon euh, Cheikh mhm. léeg-léeg tamit nga seen kuy jaay ay oto mhm. wala kër wala ay tere bu jaree rek affaire am baax mhm. mu toog lu yàgg mënul jar te mënu koo wanteer surtout mën na doon famille buy jaay ku am lu mel noonu mën nga ko ci génn ci lu gaaw waaw loolu des fois nit ci rawaan day def lu mel noonu ci nit moo xam rabu cosaan la rabu cosaan moo xam say rabi bopp la moo xam jinne ju lay yàqal la moo xam def def la

Hmm. rawaan yooyu lu nekk mën na cee nekk hmm. xam nga léegi nag si la nit ki di mel nii léegoo léeg nit ki mel na le nangam sangam nangam sangam moo tax sarax lu am solo la si doomu aadama sarax lu am solo xëy na nag ñu bari nag ñu ngi koy négliger ak yooyu wala di ko hmm. yóbbu fa am àggu fa waaye bu dee façon bi nga laajee nii. loolu am na ñu koy dund ñu bari. Hmm. loolu nag lu bari dina ko def ko ni expliqué nii léegi bu fekkee koo xamante ne dafa yor ay rabi cosaan yoo xamante man nga ko di sangu ji sa affaire du tax bala faj ñaas ñoo ñu ngi ay rabi cosaan yoo sangu nañoo seen seen i xàmbak bay bëgg a dee hmm. te dara dafa am yoo xamante yooyu yëngalu leen hmm. sarax moo leen yëngal wala nga yor sunguf soo xamante yeneen kër sëriñ si doo ko fa gis am na sëriñ soo xamante boo leen dem a mhm. mhm. may ne ma mhm. jafe-jafe am nekkee woon te ñëw ne daan faju fay na dafa ñëw dafa ñëw fii Sénégal ku am la Euh, Madeleine la tudd maa ngi tudd wala mu wax sant bi Madeleine bu déggee dina xam lu may wax Amérique la nekk ñëw na fii nii fan yii bu yàggul dara seet ci ma te yàlla rek tax te avant loolu dama jëflante moom ci leneen texte mhm. dañ ko naroon dàq fa mu liggéeyee ah. ma fay coow la nga xam na ko mi ngi daal Cheikh man euh, ñi ma dimbali si doomu ci faj meek mandat dépôt billaay xam nga sant yàlla daal. sant yàlla bu baax léegi nag comme léegi yow euh, yaa ngi tugg ci sarax. bu doon ñiy seetaan ni da leen di may. ni hmm. leen sarax bii wala ñaan gi ku ko def mën na laa sauver ci lii. Hmm. adduna bi yëpp di la déglu. Hmm. nga jàppale leen ci lool waaw bismillah ñu lay déglu ba xam ban nga bëgg sarax nga. wax maanaam ku koo xam ne que ay mbiram léeg-léeg mu taxaw léeg-léeg mu jóg mu bëgg muy dem cinq sur cinq waaw loolu nag mënoo wax sarax international ñëpp ñëpp kii ah, parce que nit ku nekk da nga am sa tur am sa sant am sa saraxu bopp mais kon jox ñu ñaan boobu mën ngaa niroog nag nit sarax su ma waxee sarax bi ni exemple mm-hmm. ne sarax bi kat baax na donte lu mu baax sarax yëpp a baax mais lu ne am na ci ku baax am kon jox na la nga jox ñu ñaan boo xam ne que kii koy toog këram mën na ko defal boppam comme ban ñaan ñaanu lan ñaanu ku bëgg xaalis ñaanu ku waaw loolu nag moom des fois du ma bëgg a joxele parce que sénégalais xam nga rek dañoo xaw a mën a war waaye bu fekkee it euh, ku bëgg xaalis waaw bindal bu da ngay def commerce da def commerce mën nga bu dee mën nga yor course wird mën nga yor course nga wird nga def bismi basmala mooy bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim trois cent trois cent trois cent waaw bismillahi rahmaani rahim trois mooy ñetti téeméer trois cent trois cent ala nashra alam nasra 66. 66 66 moo jàpp allahu allahu mhm. yàlla lépp tur yàlla dafa am de. lii tur yàlla la. tur yàlla la te sax bëgguma ko woon a joxe waaye xëy na li nga kii moo tax ñun dara ko kolu ki am na kër ñoo xam ne da da ngeen doon dem si ñoom ay nga fay bàyyee pour ñu jox la tur yàlla bu wér. Mm, bu wér lii bu fekkee da def commerce di ko def barke alxuraan kenn du la ëppale dara. kenn du la ëppale dara. du caa dégg ngeen commerce mbi moom commerçant yee ko commerçant yi ñoo ko moom. bisimilah rahmaani rahim ñetti téeméer. 300 alam nasara 66. 66 alam nasara ba saaru jeex 66 muy juróom-benn fukk ak juróom-benn. boo paree nga tëjee ko tëjee ko salaatu boo ko mënee def chaque julli ba mu baax na moom. chaque julli lii boo ko defee une semaine. une semaine wallaay commencé gis ay coppiku. Mm-hmm. bàyyi ko compteur dégg ko kon. commencé gis ay ay kii tax a. ko xam ñëpp seex duy caaxaan en ligne yëpp mën nañu ci bokkaale comme commerçant. kuy jaay yooyu bu la nee da toog sa kër li ne toog toog muy dox la ah, sëriñ ci dox yëpp. waaw dañoo yor lu wér te wóor. <laughs> Ah, yow toog muy dox par kër Rasulullah. ay nekkati kese nakuti dara de. li fi patriote yi bëgg a jëlee ah. ah. toog muy dox bi beneen façon toog muy dox la nag. Mhm. ah ñoom Ousmane Diagne. Sall toog muy dox bii bu bu dagan bi la de boo ko toog muy dox bu ànd ak waa régime Macky Sall bi de bii wérd la alxuraan. kon Cheikh yàlla numéro yaa ngi noonu ku ci amul lu mu leer rek. woo ko mi ngi noonu mu defal la non man moom du ma defal kenn. ñoom moom la nga bopp tamit maanaam bu wóolul boppam nag. la la ca la mu bëgg. ca njaay ma nag mu soog wax ak yow mu doon beneen prix. bu ku yor loo bëgg jaay mu jar. waaw loolu am naa sungub soo xam ne la koy jox suukar nga koy booleel ngay yëy ko. yëy ko ki a ko mujjee wax sànq yaa dafa ay oto sama xel ah. dem si loolu. Ah. du ma ko maye nag loolu. doo ko maye nga ko da koy kii nii sàqami ko. sàqami billaay am na ko dama ko koy joxoon yàggul dara. Ah. Touba la. Mm-hmm. parking la yor Touba oto yi si ginnaaw dafa pëndoon oto yooyu mu njëkkoon commencé di jar yàlla xam na di caaxaan xam nga rek non sunguf si ngay boole suukar def sex ko def na ngay sex ni rek yi avant nga boo yeewoo suba avant nga def dara sa gémmiñ waaw na njëkk sa biir na njëkk sa biir loolu ay mbiram yàlla kàttanam daf ko wane ci lépp ci garab yi ba ci garab yi garab dara da koo raxu dara la direct ci la ñuy faj mm-hmm. ci la ñuy ubbi nit ci mm-hmm. mën naa yàq nit sax garab mën naa yàq nit na loo xam ne sax du garab sax boo ko bindoon nga wut su Euh, naka maire yi li ñuy saafe gerte noonu xool yow suuf soosu noonu waaw am na bu fa doo sax du garaba ah, xam-xam bu ñuul la rek nga gis oto buy dem nii comme ko iñaane rek man du ma def yooyu xam nga sax waaye mm-hmm. nga am loo bind nii si air bi nii rek jël suuf si rek ëf ko oto bi balaa maa gara accidenté force décaa xam-xam bu ñuul la moo tax xam la nekk di tubaab tubaab lu ma sànku. xam-xam dafa am cher Cheikh Konte Konte la sant sant yi njàng yi nag kon jëlal numéro bu baax a baax mi noonu ñu bindaloo ko ci écran bi ci yi mu wax nii bu baax a baax a baax a baax a baax euh, Cheikh Konte. Mhm. kun liggéey kun liggéey ba mhm. mu mënul am liggéey. Mhm. ak kun liggéey ba mu tëdd feebar. ak kun liggéey ba mu yàqulee mënatul am dara. ba léegi-léegi da ngay gis sax euh, ay famille yoo xam ne que comme nit yu gaañu génn àddina yàlla moom gëm naa ne mooy reye mais am na ci yenn sëriñ yoo xam dañ naan diw diw ko liggéey diw ko def li xeet yu mel noonu ba nga xam ne que amoon na ci fami Thione sekk bi rek yàlla leen yàlla xaare àjjana ngay gis wax yoo xam boo ko gis ci TikTok sa yaram day daw daal da nga naan lii nan la ko nit ñemee taxaw di ko wax. Mhm. yooyu loo ci mën a wax waaw. gis nga na ma yàlla baal waaye sëriñ bu am baatin. Mhm. du nangoo wax yenn yi ñëpp di ko dégg. Mm-hmm. ku koy wax rek noonu moom moom jàppaleel. xoolal yow sëriñ yi nga xam ñu am baatin ba xam dañuy wax musiba wala déet. duñ ko wax de. parce que loolu moo leen may bës moo tax ñoom foofu lañ wiiru bu amul xam-xam moom la ah, waaw moo tax nee naa leen moytu leen sëriñ yi tiktok mm-hmm. xam-xam nga nekk tiktok sax mm-hmm. yor xam-xam boo xamante ne ni boo defalee nit mu gis la ko wax yoonu waaw parce que tiktok moyen de communication ba xamante ne dafa tolloog jamono doomu aadama yi suñu jamono ñun ñii ñëpp léegi nag nit kooku mën na porte ne ko message moo tax da gis ay message yoo xamante ay xaw ma xam nga yow tey Cheikh yow ñëpp xam nañ yaay kan mhm. def nga say preuve ba am foo agsi ku la gis TikTok day xam ne Cheikh mii dafa bëgg a laabiré lii. Mhm. Mhm. mais dafa am ñoo xam ne que bu TikTok amuloon amuñu fu ñuy waxee. Mhm. léegi moo waral ñooy wax yenn penalty yi ci TikTok nga xam ne que. amul dara lu leen euh, lu naan leen li ëpp na wala li manqué na. moo tax ma naan leen ne ni moytu sëriñu TikTok yi. nga xam ne mais boobaa ñoom ñenn ñi ñoom it ñu jàtt ba pare TikTok ñu baax ña nga fa da nga fay dugg gis fa. ay ay message suñu sàmm mbay. jëlee si ko leen ko fa jàngal am na ñoo xamante ne bu ñu amoon ab aajo dugg TikTok gis. aajo hmm. boobu noonu nangam ak nangam. moo tax bu kenn ay sëriñu TikTok ak nangam ak nangam. TikTok ak mooy mooy YouTube mooy Facebook mooy WhatsApp mooy lépp rek. xam yow avant TikTok dangay feeñ ci télé yëpp. Mhm. mooy sëriñ yi si nga xam ne que bëggoon nañ feeñ te télé nanguwul ñu mas a feeñ. dëgg la dëgg la xam naa la ñu TikTok bi nag wax. penalty yoo xam damay romb léegoo léeg sax. dar sa gémmiñ damay dégg léeg-léeg sax damay dégg léegoo nit ki sax saan Mm-hmm. ñu siy seet man dama xaw kii tuuti donte aw ma yenn temps yi sax damay gis romb nii nii rek gis sëriñ buy seet ma toog déglu déglu boo waxee ni nii nii ma ree rek jàll rek feneen léeg-léeg nga toog ni wax xam-xam xam ne kii nii macha allah xam nga moo tax maanaam nit ñi daal nañ xaw dañ am adresse daal nañ mm. moytu bu baax daal xam lan ma wax la am ñu may envoyé ay vidéo léeg-léeg ci TikTok bi xam nga kii nangam buñ dugalee xaalis dootul jot waaja waaw ah, loolu bari na si gars yi nga xam ne que ci TikTok bi rek lañ basé wu noonu. bari na si te man xëy na bëggoon na xam nga man dama xaw a dëgër fii ci benn côté. Mhm. dama naroon def billaay ku ma ko ma bind sa liste. am nañu la ma daan kalaayee ma jël sama téléphone woo woo woo ba. Mhm. ne man la diw sàngam. Mhm. ku sudu sàngam kat dalaa nangam ak sàngam loolu kat rafetul. loolu yaakaar mas naa ko ko xam na te client yi sax jaruñu ko. si ñi ñenn ñi boog macha ah, allah. wax dëgg yàlla parce que war a yeewu te yeewu. xam nga man moom mi ngi noon daal wax dëgg yàlla. Mm. mais nag ndeysaan nit ki tamit da ngaa toog ci internet wax ay wax. Mm. nit gëm la yëkkati alalam jox la nga bloqué ko. loolu mooy lan fi dof yooyu mooy lan. jeex na yow kay jàppale woon nit ñi. billaay wax dëgg yàlla nit ki boo jàppale nit ñi yow <laughs> jox la alalam nga bloqué ko. ndeysaan. moo tax Wally sekk daal ñu ngi koy ñaanal waajuram bi fi jógee yàlla doole ko ak xaare àjjana ak kum fa fekk ak euh, soxna moom mi ma jiitu ak coon sekk ma jiitu ak képp koo xam ne que nekk nga jiitu ji nga yàlla na la yàlla xaar àjjana dolli yërmande te aar sa njaboot bu baax a baax a baax mun daal li ma gëm mooy nit euh, jaaga def na lu rafet ba jóge fi image moom lu ko nit doon kii da ngay dégg ñu naan day sangi néew day kii déggoo moo fi wax wala moo fi def lu rafet la nga xam ci moom kon nañ ko ñaanal defal ko aar yàlla aaral ko njabootam sàmm leen bu baax a baax a baax te bàyyi bëgg bës ba wax yenn penalty yi daal côté boobu moom di nga soññee ñu moytu ko de Cheikh maanaam li ma la waxoon rek sëriñ bu amul xam-xam mooy mbubboo yenn man li ma gis su ma ko doon wax ci internet billaahi dañ may wër fii lay koñ bi la ñuy wër hmm. mais nga ànd ak dal rek mais am na yoo xamante ni maanaam hmm. xam nga am na fu ñu toll si at daal maanaam bëgguñu yenn yi man bëgguma sax sama kër ay bari ay nit nii déedéet hmm, man da ngay toll fa nga toll ma lay ñaanal nga gis résultat yi sax yàlla xam na ko non moom kay wala ma defal la ma defal la sarax ngay gis effet bi léegi du caaxaan waaye ay ay wax ay wax yu rëy yooyu noonu ak euh, Saliou Sibi Kandara maa ngi koy nuyu borom France borom France Saliou Sibi démb rek déggante nañ borom Espagne ndeysaan yaa yaa dafa wàññeeku oh, waaw yaa dafa wàññeeku wallaay euh, Saliou Sibi Saliou Sibi message ma kon incha allah ñu am coloré macha allah a baax hmm. ah, kon daal euh, Wally Seck koy ñaanal kon yàlla defal ko jàmm ak sutura. Wally Seck kon dëgg yàlla ñaanaluma ko moom. ñaanaloo ko waaw mais am nañ yéene yàlla defal ko ko loolu. waaw waaw comme ñaanal ko la musuma toog ne. <laughs> <laughs> bi fi jógee. waaw ñoom yàlla yàlla may ko xolu muñ rek. am nañ ñeewantal ci moom parce que dafa metti dafa metti nga ñàkk sa papa at yi si ginnaaw. Mm-hmm. barki Demba Ndiaye nga. ñàkk sa ñàkk sa rak. sa mag mm-hmm. Demba nga ñàkk sa yaay. sëñ bi loolu dafa metti man de su ma doon moom. Mm-hmm. damay pause waay bi ba si kanam tuuti. waaw su ma doon moom waaye nag dina metti si benn côté parce que ah. maam xëy na groupe am. Mm-hmm. ñami dundal ak ñooñu. Ah. su ma doon moom laa xam ne mu pause pas ça dépend si moom rek xam nga boo nekk ñaata fekk mu mënut lool parce que ñu wéru si ginnaaw si moom la moo leen dundal. Mm-hmm. xam nga loolu tamit <laughs> nit ki da koy xalaat. xam nga nit ki da ngay utiliser sam xel daal. waaye su ma doon naa pause tuuti kat. defaruwaat defarwaat segg li ngay segg. Mm-hmm. def li ngay def loolu nag ay wax la. ay wax la wax dëgg yàlla nga doo ko ñëwaat nag boo ñëwaatee nit ñi dañ koy gën a bëgg. Mm-hmm. ba ay jinne sax danañ ko bëggaale teg. ay jinne dinañ ko bëgg billaay maa la wax loolu. macha allah defarwaat dañ cee boole wala côté kaaraange wala defarwaat moom lu mu si. waaw defarwaat ci lépp. ci lépp ci staff ak. Mm-hmm. ci kaaraangeeg. waaw ci lépp. ci lépp waaw. incha allah ci lépp parce que instant bi xëy na gisatoo macha allah xëy na ku ko mën a kii ay magam ñoo fi nekkoon ak ay wajuram mhm. conseil yu ëpp dool ci àddina ci ñoom la daan jóge ñoom nekkatuñ fi waaye xam na ki mu bokk xam na ki mu doon yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla gën ko yokku ko kaaraange. Mhm. xam nga Sénégal yi dafa métti si benn côté. dafa métti si dëgg yàlla métti ci côté bu bu ne. bu ne ñun lu ne la ñuy gis lu ne la ñuy xam nga. Mhm. doomu aadama lu ne jaral na ko lu ne. même bëggoon na la wala rek ne buy formaté mu set wicc man nga ci dara cat. yor naa ci garab goo xamante ne mi ngi fële. garab gi ah gu rey nit la. daqaar gu rey nit. nit moo ci yëg xaru ab lu àndal. Mhm. da rey béy bu ñuul kukk. xam nga rek loolu ay code la. xam nga <laughs> loolu ay mbir la xam nga nekkul lu xaraam lu baax la xam-xamu séeréer la man mm. xam-xam damaa taal sama to dem fu nekk dugg fu ne yow moom dugg fu ne dëgg yàlla àll bu ne dugg naa fa mm, macha allah yàlla dimbali ma loolu ak yokku rek chaque jour mm. su ma xëyee gis koo xamante yor na xam-xam boo xamante def gis la su ma ne woon un million la deux million la su ma ko yëkkati am mu jox ma xam-xam man loolu moom man ci loolu laa ne man résultat ci laa ne macha allah dëgg yàlla ba nii may defee ak moom émission euh, déjà dafa naqari deret ci dëggu léppam dafay def koy teg ci yoon quoi moo tax comme moo wax ma ne la wóolu naa ko ñeme naa ko ndax du triant du dóorkat te tamit baaxul nii rek yam ci quoi day farlu pour am résultat te loolu nag ku koy def moom sama nit nga te man jàpp naa ne sama xarit la ndax résultat xaritam la. Mhm. côté man résultat mooy sama xarit. Mhm. côté boobu àggaleel ci suuf su nga ne ku ko def nan. waaw loolu nga ko daal mais pour wàllu cat ak leneen lu bari sax yaa xam ne nit ku ñu liggéey ba mu tëdd. kun liggéey ba mu tëdd waaw ba feebar waaw ko nii. waaw nag nit dina nekk dara nga ne hmm. leneen la fekk du leneen. Ah. nit danañ ko liggéey nga ñëw ne rab la fekk du rab. liggéey la. Hmm. nit danañ ko mën a bañ a liggéey sax fekk rab la te du liggéey. waaye nit ki fii ñëwut ba nga ràññee ko. ba nga ràññee nga gis ko bu fekkoon jàpp boppam am na ñoo xam bu ñu doon ñëw fii ñu leen lëng nii pour indi leen fii. yàlla xam na ni macha allah bu ñëwoon fii nii ñu lëng leen bu ñu mm. wàcc ñoom ñooy doxal seen bopp. ñooy doxal seen bopp macha allah. dañoo yor secret secret yi. secret secret yi. zaalika fadlullah yuti man yasha wallaahu zul fadlil azim macha allah yàlla dafa ñoo bàddil daal luñ bàddilul keneen. kon daal mën nga mën nga ñoo ëpp làmmiñ fuuf di wax. Mm. waaye résultat kenn duñu ko ëppale ci faj ak ñaan macha allah macha allah. yàlla gën a barkeel bu baax a baax a baax kon daal kun liggéey ak ba mu tëdd ak kun liggéey ba mënul am liggéey ak kun liggéey ba alalam di yàqu yëpp mën nga koo ci jàppale incha allah rabbi bu ñëwee rek incha allah rabbi mm. euh, sëñ Cheikh Euh, léegi nag ñu ñëw ci wàllum rab rab gis mhm. na ne comme li nga wax am na kër yoo xam ne que mhm. dañuy faj rab yi bàyyi li nga def ah doo bàyyi li nga def nan nga may at mais téewul ñu ñooñu rab yaa ngi leen di sonal ba léegi <laughs> formaté rab ba mu set wicc nit ki dem mu dem loolu loo ci mën Cheikh loolu nee naa damay sunguf yoo xamante ni mayul rab dara mayul rab dara te sunguf yooyu man ngaa wër téeméeri kër sëriñ boo demee doo fa fekk sunguf soosa doo ko fekk parce que borom rab bu ñëwee mënuñ sa dara Hmm. sungu soosu képp ku ko amut xamoo ci rab dara ku ko amul da ngay tànn loolu man maa la ko wax hmm. sungu fi moom war nga ma ko wax ma koy xàmmee kon man ko wax bu ma fu ma ko gisul rek wax dëgg yàlla xam nga mais loolu lu ko nit kii defee suuru la wala sangu la loolu sangu hmm. sangu la wax dëgg yàlla sangu la dudu ko yàqal sangu la ça dépend nit ki da nga am maanaam loolu sax su waxtaan si wàllu rab yow waaw émission mën na jël une heure de temps jël une heure maanaam dafa am ñoo xam dañuy judduwaale rab duñ koy judduwaale moo xam rabu cosaan la mm. moo xam seen rabu bopp moo xam ne nag leneen mm. mm. la rek comprendre nga comprendre naa li nga man nga ko def loo xamante ni nag sarax ba mu bëgg nga di ko def nga ko def bu fekkee nit lay ñaan exemple mu gis yow rab waaw balaa mu laa ñaanal kat balaa moo jéggi dara faa mu tural la dara wala faa mu génne sarax sàngam doog laa mën a ñaanal waaw léegi ñaan googu nag balaa moo kii ak yooyu noonu mën na laa génneel tamit beneen sarax boo xamante saraxu bopp spécial la am na ñoo xam ne seen rab maanaam dañoo danger man su ma jëlee décision exemple Cheikh nga nga am rab hmm. boo xam ne loo xamante ne <laughs> dama koy kii li benn pour man benn pour yow te waaw su sama diggante yow rek waaw na nga léegi nag ma man accept pour mën la dimbali ak yooyu nanga ak nangam hmm. léegi nag am ma sarax boo xamante ni mën naa la ko sax wax nga di ko génne chaque weer chaque ñetti weer. loolu moo la di sa téléphone daal di sa daal di. branché mu chargé sa nga chargé sa téléphone nii rek. mu am pour cent. ngay manipuler dugg fu la neex woote wuyu li gën sa lépp. Mhm. mu dem ba xaw a vidéo yooyu ay def ay 5 pour cent nangam nangam. Mm, da ngay waat. Mhm. exemple nit ki noonu la war a di def chaque weer lu mu bon ba nit ki war na saraxe saraxu raw xaanam nit ki nag man ngay saraxe di xëy di saraxe soow fekk la ngay soow jàpput mm, say mbir fekk jàpput say mbir man mm. ngay kati un milliard saraxe fekk la ngay saraxe jàpput say mbir mm-hmm. sarax bu wér fii affaire yi nekk boo bëggee dégg seen fii allah bu dee wàllu rab yooyu nga waxee nit ki bu mm. yoree rab di daanu bu ñëwee fi ma jot li may xëpp ko li koy xëpp a mën nga ko bañ a mais fii gars yi nga gis ñu ñëw. Eh, yow la kan ak. yow la kan yu nekk ay ñu si bëri ay complot la daal wax dëgg yàlla <laughs> ñu si bëri ay complot la rek wax dëgg yàlla ñun nag dañoo dépassé dama ko rus sax. da ko rus wax dëgg yàlla. non dégg ngeen ko. mel na kuy théâtre ko am eh foo jógee di nga ah? def ni ah gën ah? <laughs> wala boog li ngay wax nga wax ko ci kaw nit ñi dégg ñu xam li ngay tari lan la boobaa ñu comprendre mais wax ci suuf rek mën naa <laughs>

gendarme yooyu noonu pour am ci ndam yooyu loo koy defal ay càngat wala. mën nga loolu du problème waaw ba tey mën na jox ay càngat. Mhm. parce que nit ki mën nga kii mën ñëw di def concours kii ñëw def même concours. nga jox kii càngat jox mhm. yi nga jox baax na kee mën naa mi kee mën naa bañ a at mi. waaw la ko gàllankoor lan la. xamoo erawaanam lan la. xaw ma dafa tëjuwaale nangam xaw ma sarax ban lay laaj xaw ma nangam ak nangam xaw ma nangam ak nangam mm-hmm. moo tax nit ki da nga ko jox ci boole saraxam man ngaa ñëw tamit ñaar ngeen def même concours mm-hmm. bokk ndey ak ba exemple sax comprendre nga sarax bi may diggal du bokk sarax ma diggal kële ku nekk da nga am say rawaan da nga am sa turu bopp spécial turu bopp dafa am lu mu jàpp nangam nangam moo tax ak bu nga juddoo lan la rayal nam demee daal <laughs> façon yi mel noonu macha allah ah, daal dégg ngeen ko kon daal sëñ Cheikh euh, li mu wax moom am na solo bu baax a baax a baax concours bu mu ci mën daal Cheikh wàllum xëccoo loolu du problème moom loolu du problème kuy lijjanti papier ak waaw papier ay këyit ak këyit ak bëgg a tukki ak ku bëgg a tukkee rek ak ku fa nekk euh, bëgg ñëw wala nga bëgg waaw mooy ñaamuti këyit yooyu man ñaata la këyit laa green card sax génn naa ko Amérique koo xamante def na Amérique deux mhm. cinq la def Amérique waaw ah. mais nit ñi ay warkat lañ Cheikh warkat <laughs> billaay ko sax <laughs> léegi tamit ngeen xool am na sëriñ xam tamit mënul tukki mënuñu génn réew mi léegi kon koo xam ne que nee na da lay lijjanti këyit te neexee dem di ñëw moom de mi dem di ñëw def nañ Dubaay ca kaw asamaan sa émission ba léegi gis nañ ñeneen ñi dem a dem Dubaay mais duwaay deuxième division bi lañ dem quoi moo tax fan dem moom ak Cheikh moom foofu moom mooy loolu day dem Europe fu ko neex dem fu ko neex ñëw kon bu nee laa mën na lii war nga jàpp ne kon war na mën a nekk. kon kuy tukki bëgg yóbbu sa njaboot ak koo xam ne kër da ngaa bëgg tukki bëgg di ñibbisi ko delluwaat mu yomb la neen ay kayit yooyu domenam la. macha dëgg la këyit sama domaine la waaye nit ñi tamit nañu xaw a yeewu. nit ki mën ngay tukki sax te doo mën a lijjanti nit mu am. këyit te doo mën a lijjanti këyit loolu <laughs> ki <laughs> <laughs> ah. comme ça. Hmm. nit ki tamit dëgg la mën ngay tukki te doo mën a yóbbu. te doo mën a lijjanti këyit doo mën a lijjanti këyit doo waaye loolu nag leneen la waaye hmm. ah képp bu ñu tukki wutoon sax xay peut-être. waaw. mën defal nit too xam di tukki day dem di tukki am na ñoo xamante ni ñu ngi ci àll ba luñ la defal nga gis ko luñ gis ko te yoruñu oto hmm. boo leen gisee xeeb leen. Mhm. seen kër jagut. waaw cere la ñuy reere ak nangam ak nangam. Mhm. buñ la joxante rek sax doo fa a lekk. jeex na kon bu ne am na daal. damaa toog ëtt bu nekk. saako mhm. fa xam-xam. ci saako am na si yoo xam ne yàlla moo ma ko may direct. parce que nit ki am na looy yor yàlla moo ah, lay euh, ma xam mooy baaxaayam moom maa ngi koy wax euh, benn jour. parce que xam parfois nit ki doo bëgg a wax. mbaaxam gi ma xam mais am na ku ma xam koo xam ne ci jëf ju rafet euh, Cheikh dem na di siyaar ji sëñ Muntaxa bi mu demee xam naa ci oyofaayam am na yenn ñoo xam bu ñu ko gisoon dinañ ko fii loo fi te gëm naa ne am na ñuy wuyoo ko ministre dem siyaare ji sëñ xaa la fa Cheikh joxe ñu ñu di wuyoo ministre Cheikh la mu fa joxe mën na mat fukkam ci seen li ñu ko joxe te ñee bu ñuy dem dañuy tuumaal sëñ bi sax parce que dañuy jàpp ne bàyyi nañ fa lu dul jeex te fekk seen soxlay bopp lan fa nekk kii nag daf ko boole ak taalibe mën xam am na kilifa gu mag gu fi masoon génn àdduna ko xam ne sama xarit doomam la Cheikh Bara Ndiaye xam ko nga xam ko ma mhm. xam ko kooku ci boppam moo ma seedeel ne ma ah Cheikh de un million nangam ci def na ko nii ci te man mii di ko jege yëguma ko mhm. mu doon témoignage boobu man naa wax sax sëñ Habib Diop maanaam waa kër sëñ ñaan mu doon actu yu rafet yoo xam ne xam naa ko ci côté social ci leneen social nag boo ko waxee rek da ngay dugal nit ki parce que nit ñëpp dañuy xëy indi lay facture u daaw ak pharmacie bu lu ne ñu indi la ko ne la jàppale ma ci mhm. daal loolu laay bañ a dugg mais xam naa ne ku baax mhm. lépp nga dama ko def naturellement sans kenn sàkku ma sans kenn sant ko ko wala sama mbiru bopp la daal mbiru bopp la mi ngi noonu mën naa romb nit nii xaw ma la am feeling defal la dara te doo ma ma yëkkati dara bismillah yàlla foofu lay fayee nit ñi mhm. mais nit ñi balaa ñoo def dara fa faak caméra tàkk faak caméra nekkuñ ci yooyu mi ngi noonu jox nit doo bëgg a wax daal façon mel noonu ak lu ne daal moo tax yàlla yàlla gën a barkeel sa xam-xam bu baax ak sa yéene bu rafet parce que man nit buy def lu baax di ko nëbb du ma bëgg tamit di ko yëkkati ci kaw di tooñ mais xam naa ne ngir yàllaa tax ndax na ma ko xamee faneen lay jóge quoi euh, sëñ Cheikh léegi jigéen buy sëy nag doom tëkko wala jigéen balaa jigéen buy sëy mhm. jigéen bu bëgg jëkkër ba pare mhm. ak góor bu bëgg takk jabar ak bu mu rëccee ba am jabar doom tëleen loo ci man waaw parce que nit ki moom Cheikh dina toll fu mu war a toll jëkkër tëkko mhm. ba ci góor sax waaw toll foo toll tamit jabar tëla loolu day am mën na nekk def def mën na nekk it leneen wala leneen ak leneen mais nag faaw ñu xool saw tur ak saw sant sa turu nday ak santam mhm. boole lépp suñu seet gi ñuy xoole li si xaar raw xaan te ñun lépp lu ñu def si wàllu seet li la te li si xaar gaa na <laughs> raw xaan rek bari waaye xamuñ sax li ñuy wax wala lazim mhm. man seex chaque ajjuma dama war a tuur deret chaque ajjuma loolu sax bëgguma ko woon ma loolu leneen la pour si wàllu li gi may def nii duy caaxaan man dafa am feneen fu ma toll ci wàllu xam-xam mhm, sacrifice nag sacrifice lu yor nañ xam-xam yoo xamante ni sax faalewul ñay sacrifice ñay sacrifice defuñ benn résultat boo bëggee hmm. dégg-dëgg defuñu résultat ñàng bee fi nekk nekk dof dof loo ay yëre yu dof yu ma hmm. xamul hmm. nekkuñ ci yooyu xam nga macha allah daal ñun dañuy yor xam-xam yoo xamante ni nangam fii toog mu sotti feneen foo xamante ni sax nekkuñ fa waaw mën na tax ay kilomètre kilomètre <laughs> sama diggante ak yow xam nga waaye képp nga xamante amuloo jëkkër wala yooyu a incha ñu teg la si charte boobu noonu macha allah nga kii ko daal hmm. mën naa si may xam-xam boo xamante ni sax xam-xam bu ñuul la jurul sax hmm. nit ki di ma woow hmm. na jël saw moo xamante ni maam am la saw fas fas moo xamante dafa saw si suuf fas saw si suuf nga tonni saw yi moom noonu waaw fas bu góor ak bu moo xam bu góor ba nekk Fatick bu jigéen ba nekk Tamba waaw comprendre nga mu saw ba si suuf rek nga tonni saw moom noonu nga teg ko fenn weer ko ba mu wow ñaari saw yëpp nga jaxase ko nga wut tàgg moo xamante ni <laughs> maa ngi may xam-xam Cheikh billahi wala taala tàgg ay ñoom faay dara yi du xam luy tàgg de tàgg mi yi de du tàgg du tàgg yi de non dama bëgg wax ma xam-xam bi moo garaaw moo garaaw ok bëgguma ko kii sax waaye xam nga mais àggale àggale lii comme ni ñu ko doon noté pour def quoi nga jël tàgg mi waaw tàggum pitax lay doon tàggum pitax ci séng yi ngay dem wuti ko wala kàdd yi waaw tàggum pitax wala sump yi it léegoo léeg yenn sump yu mag yi mu nekk waaw xam nga nga dem wut ko nga dëbb ko ba mu kii dëbb ko boo ko amee ba pare daal nga dëbb ko ba nekk sunguf yooyu. ba mu nekk numéro yaa ngi ci écran nga boole kaak suufu saw mu sawu fas mu góor mi. ak suufu saw faw saw waaye su ñaari suuf mu da nga koy boole ba pare rek mu nekk benn rek. Mhm. nga weer ko ba mu wow rek. Mhm. ba pare nga boole ko tàgg mi yëpp jaxase. jaxase nga comp sangu. xam-xam bu ñuul la seex. xam nga du bayre de. Eh. loolu pour ku mun ku ku munul am. góor gis góor dégg alxaari la. Ah, muy góor ak jigéen baari daal maanaam ku bëgg am jëkkër wala bëgg am jabar. loolu la daal dégg ko mais li ma bëgg a xam mooy. Hmm. fas bi c'est force nga am ñaari fas bu góor bu jigéen wala. boo amee ñaari góor wala ñaari jigéen déet. ah góor jigéen. Hmm. Hmm. ah nit ki mën naa dem fan yow fas yi rek mu jël temps xool. bu fas yi waree saw rek. Ah, am na bërëb yoo xamante ne fas bu góor kese fay yeew. am bërëb yoo xam fas bu jigéen kese fay yeew. Mhm. am tàgg moom boo demee ci àll bi am ko. waaw mooy li mel ne njàmpe ñax yi rek ngeen comprendre ko tàgg tàgg de tàgg bari na si àll bi de seex yi bokkut ah. de ah. waaw ay tàggu ngóotóot <laughs> nangam ramatoog lépp am de <laughs> mais lii lépp ku bëgg nag nga defal ko ko moom bagage yooyu fekk na am nga ko ba pare yooyu am naa ko mi ngi fële am naa si hmm. am pagaay yooyu parce que bala ngay jaawale affaire yi leneen di la ci fekk ñëwal ci Cheikh nga wax ak moom numéro yaa ngi ci écran bi bindal euh, lii dama la koy joxaat 78 397 65 93 78 397 65 93 Cheikh borom produit Cheikh compte di ngeen xam-xam yu ñàng yi mu yor jël tàgg meeg yooyu boole ko euh, saw mi sangoo ko rek mais bu ci mayee keneen mu sangu nag day am avantage. waaw. comme ci jox koy macha allah. macha allah. te dis ko soxlu ay góor kay am pagade lañ ñëw farata tax leen jóg xanaa nag nga bañ leen a bëgg ak yooyu noonu nga bañ leen a bëgg eh, farata leen tax tax a jóg mm. nit ki da nga koy ñaanal am na ko mën a defal ay jamono yu mel noonu dama koy mujj mere sax ah. bilaay da nga ñu gis ñu ñaan gi ñëw de ah, ñu toog di suwaa ci rek nangam ak nangam ah di kii jéem a dof dof waaw mm, leen fa ba ñàkk seex ah, borom produit yu baax yi eh, léegi gis na ni nga waxee ci lii léegi nag ku nekk kaso mm-hmm. bëgg fa génn ak ku nar a dugal kaso nga bañ mu bañ a dugg bëgg kaaraange boo xam ne du dugg kook loo ko mënal loolu Cheikh waaye li si njëkk li ñuy wax rek mooy nit ki na jub ba pare na jub ba pare génne nit moo gën a metti nit hmm. ki bu duggee si kaso waaw billahi wallahi wa taalahi li ma koy jox bu demee ci moom barke alquran mu génn mu génn billahi wallahi moo gën a naan ndox moo gën a yomb kon mën a déggee Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko génne leen ci kaso buñ ko defoon mën nga Cheikh xam-xam dafa am de Cheikh yàlla li mu wàccee si àddina bi nit ki xam ak ñàkk xam kese fi nekk Cheikh nit ki nag des dana wax loo xamante nit ki naa ñëw bu ñëwee dara du fa fekk <laughs> lekkati kese la fa fekk seex lépp lu ma la wax ne fii mën nañ ko ak lu ma waxul rek xamal ne mi ngi fi nit lii ma la wax ni lii nga def nii ci nit yëpp lay valable maanaam ku nekk kasu Amérique ak Sonko bu lekkoon wala Diomaye Faye lekk ko day gën ku man Sonko ma Diomaye Faye intéressé wu mhm. doomu aadama nga jafe-jafe nekk ci kaso loolu say mbokk ñoo ñu defal ko ko defal ko ni ñu la koy waxee waaw mu jox nga fexe moom mu lekk ci mu lekk wala nga def ko ci laax mu fexe mu lekk ci wala ci ndox am barke alquran ak yàlla bu ma àggalee émission bi may wax mhm. defal naa ko nit asalem waaw mu def ko ci ndox tur turu nit kese si nekk de benn tur moo si ak turu yaayam de ñesa naanale barki alxuraan dañ leen bàyyi ak ma ñàkk sama ndey du dégg ngeen ko kon waaye yéen patriote de billahi wala jomaay ñu a baax Cheikh borom produit na ko wallahi mais bi euh, garde yi mënuñu ko tee wala ñeneen nag non non loolu nit ki ne say say mbokk am nañ droit indi lekk de waaw loolu da nga koy ci lekk wala loolu xoolal bu la neex nga def ko ndox ba pare nga sotti ko si si si si laax wala si si ndox wala parce que bu jël événement boo ko jëlee xam nga bind yi feutre yi day xaw a bula tuuti boo ko defee ci ndox nga def ci tuuti ci éveillant bi day xaw a nuru éveillant bi xam ne am ni am na gaal am na dara quoi day xaw a bula xaw a clair nii xa hmm. nga. waaw xam nga mën nañ ko def si bari loo xamante Cheikh jënd ko loolu du caaxaan Cheikh loolu. <laughs> ah dégg ngeen ko kon kon daal luy génne Ousmane Sonko kaso ak Bassirou Diomaye Faye ak ak ñoom euh, Hannibal Djim ak ñoom Cheikh Omar Diagne ak Karim Xurum Xax. kon daal lépp luy génn kii nga xam ne que ñu ngi ci kaso bi rek. loolu secret la ma xana la xam naa borom xam-xam bi ñu déggee la ma xana dinañ xam ne waaye nag la ma xana dafa ay secret la la ma xana jaxada am ñu euh. la ma xana jaxadin euh. xam nga dafa am ay doom waaw jantal tuuti ma dégg jantal sa may neex quoi daal li ma tuuti ñamul waay bisimilah ji fee jaafee caméra saka jinne sakata jinne fora ndiki jinne sela ndiki jinne alamur alamu bourse roktik maak kobito koma kobito birun barun basarun basbas boccet boccet mayre kosore kosore ahmed xaax yaa ayyuha rasulum balligh maa unzila ilaykum min rabbikum suqum nuqum cus nuqum suqum cus kër <laughs> rasul dafa duggaale ci biir sax waaw xam nga jat ñu si bëri pël pël yi ñoo ko kii te dañuy xaw a yàqal boo dégg ñaan salaali Muhammad waalaali Muhammad mooy salallaahu ala Muhammadin ñu naan salaali Muhammad waalaali Muhammad waalaali Muhammad wa ala alihi wa ala alihi <laughs> Cheikh dañu yàgg ci xam-xam ne dañoo waxul rek barke Rasulullah Cheikh bërëb bërëb yi baax gëstu rek am solo euh, Cheikh damay génnaat euh, après dinaa ñëwaat mais xaar ma dugg ci mbirum élection yi tamit mhm. élection yi maanaam candidat bu bëgg bu ni wàññi nga bañ am gàcce mm. bëgg bayra boo xam ne que campagne bi da ngay yëngatu mm. élection yi tamit bu ñu tudd sa tur dañ ciy limaale lu bari lu neex mm. duñ la limal ay zéro ku teel a ñëw ci yow nii mën na ci dara Cheikh man mm-hmm. nit buy def concours xam nga euh, naka élection xeetu concours la ba tey mais nag am na beneen façon boo koy liggéeyee mm-hmm. mën naa si wax secret yoo xam ne dañ dox si wàllu concours mais concours dafa bëri ay façon mm-hmm. mais nag nit ki concours it mën na nekk beneen façon nit boo xamante ni mën na am lu ko gàllankoor loolu mën nay xaa di ko xaaree ci loo xamante moom la gën a bëgg pour mu fakkasal ko mu fakkasal ko ok su boobaa nga dama dañ maa liggéey fekk kenn mm-hmm. liggéeyu la fekk la nga àndal loo xamante ni xamuloo rawaan sarax bu mu bëgg yaa ngi génne saraxe milliard saraxe million dool fekk xëy na boo génne woon benn <laughs> juróom-ñaari mbuusu nangam wala juróom-ñaari nangam. juróom-ñaari mbuusu ndox affaire affaire rek la mbuusu soow wala juróom-ñaari miskit wala nangam. exemple la rek exemple. Mm. man sarax yooyu dama ko sarax sax yooyu. ay ah. soow ak yooyu noonu. ah bokkoo maanaam du du sarax yi du sa du sarax yi nit ñi ko def nag wax dëgg yàlla ñenn ñi quoi. waaw bëgg daal kii di sarax daal bu jëlee sarax bi bëgg daal mais saraxu raw xaan nekkul la daal wax dëgg mm. xam nga ku nekk sa <laughs> man loolu ku ci teel a ñëw mën na ci am dara ah, man de wax dëgg yàlla képp ku ñëw si man waaw nga ne nangam laa def nii waaw ma bëgg si am résultat nangam mm-hmm. comprendre nga yaay wax li nga bëgg li nga bëgg ñu xam kii si li muy bëgg nii lii lañ ko si bëgg ñaanal waaw mala sur dëggantaan sa turu nday dëggantaan ak santam waaw xool say mbir nangam ak nangam yoon ba ma la awale boo fa awee li nga li ngay sàkku da nga koy jot amul ku ku yàlla gi te dañuy defar kaaraange goo xamante ne nii mm. nit mënu laa gàllankoor nit mënu laa gàllankoor naa la xam ne ah, élection dana bëri ay ay ay kii ñoo xamante ni maanaam ay tiq tiq doomu adama daal maanaam uh-huh. parce que nit ngay concours dara mm. kii di concours dara kii di concours dara mm-hmm. ah am na am yow mi concours maanaam mm. dañ lay fexee liggéey jeex na élection yi ko jàpp moo ci sens ci candidat yi waaw xam nga nag man seex Cheikh eh, wàllu élection yi bëgguma ko ëpp sens yooyu waaye xëy na man li ma gis su ma ko doon wax ah. billaay danañ ma tam nangam ak nangam junjal ma junjal ma maam xëy <laughs> junjal ma rek junj Cheikh du junj sax waaye ah. lu ñu yàlla wan la mm-hmm. te yàlla bu la wanee rek mm-hmm. bëggul ngay nettali bëggul ngay nettali képp koo gis yàlla daf koy wan ay mbir ciy gént ciy gént gént yàlla message bi muy jàlle la si doomu aadama nit ki mm-hmm. xam ko ak mu ñàkk koo xam gént day wax ak yow sunu borom mooy wax ak yow mhm. sunu borom léegi léegoo léegi mu tànn ay doomu aadama xamal ko li xew ci réew mi mhm. wan ko image yi nangam sangam bis nangam sangam wan ko ay mbir yow bu dee mhm. borom mbir nga wala borom baatin nga da ngay xam li xew da ngay dégg ñaa ay nangam sangam dana am ak yooyu dëgg la am na ko mais am ñoo xamante ne dañ ci boole tappalee moo tax xam nañ ni loolu am na dëgg la nit wax ne nangam sangam day am parce que ay jamono da nga toog ne ah, at mi kat nangam ak comprendre nga. loolu xam-xam bu existe la mais dafa am ñu fi ñëw tamit jël lu mel noonu copier ko. copier ko di si waxaane ah accident am. ay tuuti doon la ñuy wax di tiital nga. Mm. fekk dëgg la parce que chaque jour accident am man day day am. fépp mm. day day te xam na damaa noppi. Mm. Euh, ruus naa ko wax ragal naa koo wax. te rëy la. fii Sénégal. <laughs> te balaa yàgg loolu di ko dégg. Eh, junjul junjul ñu seex kilifa la di doon kilifa xam nga bëgguma dugg si yooyu sax xam nga ah, la daal macha allah ah kilifa lan day dëdd Cheikh ñi jàll si émission bi ñu wax xam-xam ah? ay garab ak yooyu waa léegi àggaleel fi nga doon ci élection waa léegi naa ñëwaat kon moo koo xam ne jàpp nga ne am na sens ak koo xam ne élection dañuy ñaan yàlla mu am ba pare mu am waaw dañuy ñaan yàlla mu am ah. te it ñaan yàlla jàmm am ci réew mi jàmm am ci réew mi te wax dëgg yàlla képp ka nga xamante ni am nga doom mm-hmm. nga gën a farlu bàyyi xel sa doom. Mm-hmm. pour boo leen mënee utali kaaraange nga utal leen kaaraange. Mm-hmm. boo leen mënee defali sarax nga defal leen sarax bu fekkee xam nga seen saraxi rawaan. Mm-hmm. boo ko xamuti di nga sàkk sarax te yàlla rek tax. te yàlla rek tax. waaw. sarax dafa bëri ay façon waaw mën ngaa sàkk sarax te yàlla rek tax yàlla musal la yàlla mën naa nangu loola. mën naa nangu loola. comme parce que sax dafa bëri ay façon ni muy doxee. ni muy doxee comprendre sarax koo xam dafa nekk fi ak sarax sàngam war a génn dafa bëri façon daal exemple comprendre nga ñu tënk ko waaw comprendre nga nit daal dañuy gën a jug seen seen i doom waaw utal leen kaaraange utal leen kaaraange parce que ah doy na waar lool man de wax dëgg yàlla moom euh, fii ma février moom Touba moom xam naa képp ku may kii fag may fekk bu soobee yàlla moom incha allahu rabbi <laughs> waaw fii ba février allahu rabbi daal dégg ko fii ma février di jeex dégg ngeen ko kon Cheikh borom produit li mu wax kon daal Touba bu sécurité dafa mel ne maanaam àdduna bi sax man nga dem Touba sax. waaw xanaa yàlla bu dee da dafa dafa dara ci yow day am foofu. macha allah wala jaajëf mais Dakar daal am na risque daal moom maanaam xam nga am na yoo xamante ni samay wax. borom xel man borom xel laa wax waxuma ak dof yi. fi naan ay lii mooy xew ak nangam ak hmm. nangam man dama war di wax yooyu. xam nga. Euh, ñun dañu xam lu bari ne pat. mais élection yi bu amee après dina leer wala du leer. Cheikh nañ génn ci loolu rek <laughs> balaa gars yi di ñu vaat te ñun wax dëgg yàlla bëgguñu bës bëgg a bës nekko ci yooyu nekkuñ ci euh, yooyu Cheikh wax dëgg yàlla ñu ñëw nag ci comme waxtu baa ngi ñu dab ma ñëw da nga am ndomb gooyor mhm. ndomb gi waroon nga ma ko sax ndomb gi lu mu wund ci njëriñ ndombali mooy lépp ba baax na sax si wàllu élection yooyu noonu ah. ba mel ni mi ngeen foofu mii nii ndombali ndomba gii la yeneen yu may seen nag waaw lii képp kuy uti dara lii xam-xam bu ñuul la kukk ay sunguf yu garaaw moo nekk ci biir ñu ak ay bagages yoo xamante ni moom lañ ko ëwaale. Hmm, ñaata gaw la. lii douze gaw la. douze gaw. Hmm, toolul daal. fukk ak ñaar. ah léegi damay dégg ñu naan ndongo onze gaw ak treize ak nangam bii toolul. daal waaw des na ay vingt nangam ah, ay gaw. ok waaw. des fois nga am dama ay ñaari gaw. Hmm. benn gaw juróom-ñaar. waaw yooyu ku nekk ak sa kii rek. dafa bëri. bi àggale nga ne ci njëriñ yi. lii lépp looy sàkku lépp looy sàkku. billahi boo ko takkee wut ko. boo ko su ma ko tegoon fii nii fële waaw client ñëw fi waaw na bari ay ndomba yu fa nekk waaw bii dana ma bii mën na koo laajte parce que bayre bi ci nekk moo tax bayre bi ci nekk duy caaxaan billahi wala wa taala parce que am na ñu nekk ci ginnaaw mais ne moo leen a rafet sax quoi xam nga moom lii beneen affaire ko yàq bu ko nit ki amee mu réer rek mm-hmm. loolu donc rek kon dégg ko kon ndomba bu baax a baax da nga yor tamit beneen mbir muy jaaro fépp foo ko takkee foo ko takkee maanaam nga dem ci mbooloo yaa fay gën a ràññeeku yaa fay gën a ràññee. billaahi wallaahi wa taala kon Bamba gi am na bayra ba am na am naa kaaraange. non amul kaaraange. amul kaaraange bayra rek loolu kaaraange beneen façon kon lii maanaam candidat bu ko am di ko campagne da lay gën a yokku. candidat Momadou mm-hmm. Ndiaye ak. Tafa Ndiaye ak Asou Diop a ci yem. <laughs> man ma kuy candidat faalewu ma man nga si man laa yemale faalewu ma ministre faalewu ma président faalewu sa bopp nga gëm. Mm-hmm. jeex na euh, Cheikh borom produit yu baax yi kon dégg li mu wax bu baax a baax jaaro tamit da nga ko yor jaaro bi lu mu wund ci njëriñ jaaro Cheikh bari na ay façon yi ma ciy liggéey. Mhm. wax dëgg yàlla bu fekkee ci ubbiku. ba ci ñi def commerce aussi am na si loo xamante ni si jaaro. si jaaro dama ko ciy liggéey. Mhm. wala ku bëgg yenn façon bayre yi. bayre yi ko liggéey def ko si jaaro. Mhm. xam nga macha allah daal wax dëgg yàlla daal wax dëgg yàlla li a liggéey. bari na bu ko takkee daal dina yëg ne mi ngi yokk daal. te te lu lu daal see xam-xam dafa am daal. xam-xam dafa am daal xaw ma ku koy laam laamee waaye hmm. xam-xam dafa am daal wax dëgg yàlla macha allah Cheikh jabet nag comme daal loo mën ci moom jabet jabet bu def góom wala jabet bu mën doon bu def góom ak ku nar dagg tànk bi ak ah dama koy jëndi ba mu set wicc wicc wicc ba mu set wicc walla xam na ko yàqu kenn mënu ko ko faj ne <laughs> jabet kenn mënu koo faj waaw tension kenn mënu koo faj hmm. waaye waxi tappale la rek waxi tappale la yàlla dina teg feebar nit hmm. te du am lu ko saafara garabu yàlla yi mu bind ci àddina yëpp lu muy jëriñ jëriñoo ko yàlla dëkkañ fi ay mbiram ay secret mhm. yàlla wàccu naa la kat muudu njaay demal faju fi mhm, déedéet yàlla def ay mbir fenn mhm. sàcca ji nag bari na ñi boo bari na képp ku am jabet seex waaw wala jabet bi def góom waaw boo ñëwee ma faj la ba mu ba mu denc yow ba mu wér péng kon ku papaam am wala yaayam am jabet wala mbokkam am jabet wala ñu naan dañuy dagg tànk bi loolu daf fiy jeex su dagg tànk waaw dagg tànk am na fu muy toll su boobaa feebar bi jeex na ci moom. jeex na ci moom ah. waaw ok. bu fekkee la tànk bu dee yéex naa ñëw daal mënatoo ci dara. waaw ça su ma gisee feebar bi la bu ma gisee tànk bi xam naa ñoom seen tànk fii koppati ko ba wala njaal <laughs> mar di taale. mar di taale. Mhm. xam nga. xam naa li nga wax. comprendre nga su boobaa am na xam fi mu toll moom dagg tànk rek moo fa kii mhm. mais am na fu muy toll nag mu kii comme dagg kiiw fa macha allah mais def na góom mën naa yaa dugg mën naa ron yaatu nii ak yooyu wala mu kii bi rek waaw mais mën naa dox ay kii yam am na kii même muy metteek Ah. di def ay matt ak yooyu noonu yëpp dañ koy vider vider ndox mi dindi ndox mi kii ba mu set ba mu set garab yi la jox mooy di mooy vider ndox mi mooy vider ndox mi da koy dindi matt matt yi matt matt yi mooy day jam ay yooyu am na ku ma fajoon fii ni def naa fa am sama TikTok boo gisee mm-hmm. xam nga góom la amoon boo xamante ni mooy loolu macha ah, allah mi ngi noonu kon dégg nga diabète ak tension yëpp kon da nga koy faj ba mu wér péng tension tension bu yéeg ak buy wàcc yëpp tension bu def ay 17 ak bu bu ëpp daal Mhm. képp koo xam da nga am tension maanaam feebar yu bëri cheikh mbirum seytaane la mbirum rab la du mhm. am na hôpitaux yoo xamante ni boo fa demoon mhm. ña fa tëdd na ay weer ña nga fa médecin dañoo faja faja faj bay bëgg a dee gisuñu dara gisuñu dara pourtant am na la leen jàpp la leen jàpp médecin du ko gis xamu ko billaay ñu bari ñu naan ay corte moo leen jàpp kenn corte leen ay rab ñoo leen tëral fa ñu nekk ay rab dafa bëri ay détails yoo xamante ne nekkul mais ni ñuy leen dañ laa liggéey na dëgg la am na ñu ñuy liggéey mm-hmm. am na ñu ñuy liggéey liggéey bi du jàpp mais ñu si bëri ñu kenn mm-hmm. yu si nekk yoo xamante ne kon mais tension daal yow bu yéeg ak buy ko rek Cheikh tension bu normal bu normal nit ki mu la joxee benn garab am na si koo xamante faj naa ko yaakaar naa ban dëkk la nekk Belgique xawma Mhm. su ma jumut Belgique daal non Canada Canada wala Belgique daal su ma ju benn si mhm. jabaram tubaab bu ñuul la mhm. tension dafa tëwoon a wàcc billaahi mu jaaxal médecin foofu ma defaral ko garab yónnee ko ko par GP mu jot utiliser ko dane Afrique ndekete am na lii am na lii billaahi mu tax toog di critiquer li mu njëriñ maanaam xam-xam daal sëñ bi daal mi ngi fépp macha allah daal euh, prostate nag loo ci man feebar boo xam ne dañ naan mag ñi la léegi ndaw ñi mën a ji commencé Mm. dëgg yàlla lu ci mënti doon ku dal. waaw mooy bu dee nasaan paa yi ñoom sax bu ñëwee xëy na su ma xoolee sax mën naa la may garab bi. mën nañoo saw seen tubay. Mm. nga may xam nga rek wax yooyu tegginewul daal waaye président de la république bu ma gisoon sax mu mel lu seen tubay ji sax yooyu xam ne sax yooyu tegginewul ak mag ñi daal xam nga waaye daal xam nañ ko ñoom ñu dal képp ku dal wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, am na si ñoo xam ne ñu si àgg si opéré ko te man ku xam si rek jërul nga koy opéré waaw mm-hmm. mais ku ko amul bëgg ci mucc à vie mën nga ko fexe ba. du ko xam nga Sénégal africain buggul prévention la xaw ma lañ koy wax prévention waaw du ko xamuñu ko buggul fagaru. buggul fagaru moom dañuy bëgg a bàyyi ba waaj a dee ñu doog a faju ñoom loolu lañ gëm ok. Mhm. Ah, garab sàngam. Mhm. comprendre nga. Mhm. fa loolu dalee ba pare ñu doog a warul leen faj. mi mel ni ko am hémorroïde rek. ah hémorroïde. hémorroïde xam nga fii ak tërul la yooyu noonu nga doog a jóg. waaye ba muy def effet di manifesté kat xam nga def ay ballonnement nangam ak nangam. Mm-hmm. mu dikkee la kolopateeg yooyu yëpp fajoo ko nga bàyyi ko ba mu àgg ci beneen dimension. Mm-hmm. nga doog a jóg yooyu. émurit képp koy faj émurit. waaw moo xam bi génn def ay deret ak. Mm-hmm. dama koy dindi ba mu set wicc seex. ba mu set wicc. na kon moo xam émurit interne wala externe. dama yor garab yoo xamante ne yooyu yëpp seex. yooyu jax jarut ay débat ay émérite na ko sa débat yooyu bu ne borom produit rek mooy kii yooyu léegi nag ngóor nag ngóor nag góor buy gaaw a yegg ku mënul dara ku awra bi mel luy gën a tuuti mhm. euh, ku bégul ci sëyam daal bu dee wàllu awra buy tuuti mhm. bu fekkee day dellu loolu liggéey dana ko def liggéey dana ko def émérite dana ko def émérite dana ko def seere bu bari seere bu bari émérite interne mhm. da koy def muy di def sa awra di dellu di dellu am na si ñoo xamante ne jigéen ba ñu tëddee dafa ñoo yor rawaan yoo koy def léegoo léegi nga tim jigéen ñoo xam ne sa du jóg du dañ maa takk xala fekk kenn takku la xala ok dafa am jigéen ñu mel noonu daal léegoo léegi tamit nit ki ñoom it des fois ñoom seen bopp mhm. am góor ñoo xamante ni dañoo er ay mbiri bagage mbiri bagage ah buñ bëggoon jigéen buñ bëgg bëgg exemple ñu takk ko mhm. ñu dem rësey ak moom dëgg la des fois dina am si tuuti affaire psychologie lañ koy wax ma yooyu noonu mais ñu bari loolu lañ loolu loolu kii mais loolu man 1 pour cent laa ko jàppee rek ko jàppee. mais ñeneen ñi mi dal ñëpp takk xalam mi ngi ci. takk xalam mi ngi ci. boroomi rab mi ngi ci. boroomi rab mi ngi ci. waaw. Mm-hmm. moo xam soit ki ngay tëddee. bu dee sa mm-hmm. jabar yi ngay tëddee moom mu am rab. bu mm-hmm. bon wala soit. am na si ñoo xamante ne sax seen i jabar sax ñoo xamante ne dañu bëgg tëddee ñuy bañ. na di la ko aaye. di leen ko aaye. loolu moom boroomi boroomi nangam la. boroomi rab la. du rab sax leneen la. Ah, borom la quoi leneen <laughs> kon dégg ko léegi nag yokk awra tamit bu nga xam ne que moom. yokk awra seex siiw ci waaw. boo bëggee dégg dëgg bu baax bi. bu baax bi ci man la nekk ci kii. Sénégal ñu fi dégg yokk afro comme copie bi maanaam euh, euh, kii bi bi daal fii la nekk. vrai bi def gis bi daal def gis résultat bi fii la nekk. def mu mu mm-hmm. ngay gis ay résultats. di diw rek. bis tey exemple bu dee àjjuma nga ko commencé mhm. balaa àjjuma biir ñëw ngay commencé gis résultat nga xam ne kat a continuer a a continuer nga awra bu dul jóg nag impuissance dama koy faj dama mhm. da may leeral man da bëgg yokk awra wala sa awra moo jógatut dégg awra bi day dellu yow yaay faju kat sa awra day dellu nga mhm. du jóg wala du dëgër Mhm. wala du def liggéeyam. Mhm. wala day def combat bu gàtt wala bu gudd. bu ci doon rek am ñoo naa dama bëgg garabu kàttan fekk ñoom dañoo tële. dañoo tële léegi boo ko joxee garabu kàttan léegi exemple fekk ku tële la léegi fekk yow xam nga rek ñoo ñoo war a leer nit ñi daal li ñu bëgg a faju daal moo tax man dama xaw a compliqué ba ma wax dama lay leer ndax nangam la wala nangam wala nangam mm. damay kii daal waaye ñun dañuy dimbali nag ñëw wax li leen dal daal ñu ñu jàppale leen ci daal gagné temps dégg ngeen ko léegi ngeen wax li leen dal bu baax a baax pour mën a gagné temps bi euh, jigéen bu dul ak bànneex sëy nag waaw jigéen bu dul yëg bànneexu sëy it loolu it rab dina ko def lu bari wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw lu baree baree baree bari quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent bi rab moo koy def. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. waaw mais it loolu it nit ki bu ñëwee it wax dëgg yàlla ñu dimbali ko macha allah ci ay garab daal yu muy utiliser. Mm-hmm. léegi ku rab jàpp euh, ba mënul wax. ba mel ne lu muuma kooku mën nga koo lijjanti situation. bu baax. loolu wax loolu naa si ay nit ñoo xamante ne nii rab moo leen jàpp ñu gëj a wax waxuma nag ku mu mën a waxuma nag ku musut wax waaw waxul ku musut wax am na si xale yoo xamante ne bu ñu juddoo waxuñu am na leneen lu ma leen liggéeyal am na lu leen liggéeyal waaw xale yi judd mënuñoo wax toll wala toll ci wax waaw waxuñ wax bi leerut tax yooyu noonu hmm. loolu am na leneen spécial liggéeyam bu dee nag koo xamante mag la ku toll ni man ak hmm. wala ku ma mag ak wala ku ma xam man sax mag naa ko yooyu hmm. xam nga mu daan wax di wax normal boo waxatul ñëw fekk rab yoo koy téye. Mm. xam nga ba wax gi mënatut a wax ya day noppi. Ah. day noppi rek mel ni ku mu ma léegi. kooku bu ñëwee damay jat li may jat rek. ok boo nekkaa diw mu ne ah. billaay wala wax la naa seet ay nit yow seet xam-xam am na mais man dama am ku am lu a man ñaar fukki at yu tegal mhm. mais waxagul ba léegi ni kooku kooku munoo ci dara maam daf ko judd waaye wala waaw bi mu juddoo ba léegi waxul daal musul wax musul wax muumawul mu waaw mu mu mu mu. maa muuma la daal. waaw musul wax musul wax daal munul wax ay wax yu ndaw. wala ay yaay wala yooyu mais waajuram li ñu ko gën a jàppee moom rab lañ ko fooge moom. waaw moo tax ma damay laaj rek après bu kiyee ma doo ko jaal si tur bi ak santam ak yooyu. waaw loolu après bu ma kiyee ak santam ay xool tur xam lan moo téye lan la si nekk nangam ak sàngam. moo ci nekk ok incha allah baax a baax a baax. Mhm. ah sëñ Cheikh euh, waxtu beer yi dab euh, mhm. balaa ñu kii ku feebar am feebar xol xol mhm. loo ci man seex li ko commencé ci karawu bopp. karawu bopp ba ci wewu tànk. bépp nekk bépp fer bu nekk ci doomu aadama dama koy dindi. cancer ak. cancer. cardiaque ak. cardiaque. sida asma ak. fajuma ko mënuma ko faj. ok xëy na ma am garab yi koy faj te xaw ma ko. te xaw ma ko ok. waaw am nañu ma si woo des ku nekk Amérique ku nekk Espagne ñaar ñooñu ñaar nit moom. kenn ki moom sax jëfandikoo naa garab. Mm-hmm. waaye man fajuma ko. man xëy na ma garab yi te xaw ma hépatite B dama koy faj. hépatite B ba mu faj naa si koo xamante ni plus de 15 ans mi ak moom. Hmm? Gambien la fii la ñëw toog. bi la génn toog eh, barke alxuraan. Hmm. <laughs> Eh, doo doo ci man ma doon milliardaire nag lii la yàlla may lépp nii sama doon sa xarit. Cheikh yàlla baal xam nga des fois waaw ma ñaanu bépp jullit ñi ma gën a doon jullit dañ koy ëppale ñaanu benn loxo laal dëgg la waaw léegoo léeg sax nit ki eh. di nga ñaanu dara fekk hmm. gënul ci yow xam nga loolu day fekk mën nga ko am léegi dama yàlla baal. xam nga rek ñu noonu daal. mais mais ñaar du gën a am milliard tegtal raw. waaye incha allah sax tegtal raw télé yi. xam nga. li nga bëgg nga am ko te yorooy milliard. waaw xam nga day am. xam naa li nga wax na sutura yi soxla yi faju rek sutura yi. soxla yi di faju foo soxlaa. foo amee soxla léegi faj ko léegi. te mën nga bañ a am milliard ko léegi waaw. loolu laa bëgg de parce que même bu ma waxee milliard sax dem tabaxi jàkka xam moo tax boo gisee man parfois bu may dox su dama bëgg di yor xaalis ñaan lu am na de boo gisee koo yërëm nii léeg-léeg da ngay dem ba boo leen toppee yoo leen far yërëm quoi hmm. moo tax damay bëgg di doxantoo li tolloog li ma soxla rek façon yi mais soxla naa mbir yi gën a xéwale ko xéwale waaw ah, loolu xam-xam bi mi ngi fi seex yow hmm. yow sa gaay yow yow sëriñ si xam nga sëriñ si sëriñ si nen dañ la bàddi di def tegtal di am euh, raw RMC daal. ñu dem mm. ci kaw ci bu baax a baax. Cheikh defe naa yin bëggoon a dugg dugg nañ ci yu bëri. Mm. Euh, vraiment waxtu bee du dab la lan ki bëggoon a wax rek noob danga koy def. yow tubaab ba mu ne ngodd wala góor ba mu ne ngodd wala loo wax mu sant mu def ko. billaay walaay dama la bëgg a tegal ay audio Cheikh. xëy na sax dama bëgg tubaab laa ko jàpp tubaab daf koo baax. waaw. Hmm. <laughs> Cheikh wallaay <laughs> sant yàlla rek. Mm. xale bu jigéen la France la nekk. billaahi wallaahi wa taalaahi macha allah. ma ne la gëm na xam nga mhm. sax def na ko. yàlla xam na ko ak ma ñàkk sama nday du caaxaan macha allah. ma ne ko bi ma ko xoolee kii bi diggante ak moom ne ko nangam sangam nangam sangam. Mhm. jënd na sarax sangam. nga fay ma sangam. waaw ma ñaanal la ko. waaw sax affaire yi pare sax appel yi bari. te man su la su ma kiiwee dama la xaw a so dama xaw a soof mhm. quoi. maa ngi ci yow kay daa jar yàkkan. lu paree gut. ba mu pare ay quatre jours yooyu ma jox ko GP bi après GP mu jot mu utiliser ko na ah, gisaguma ma dara de. mais mhm. soxna utiliser rek. barki alors dama toog ba si yàgg aéré femme bi nu mu tuddati jul di la tudd mais bëgguma sax wax sant bi. Eh. xam nga day waat def aéré la bu njëkk a ñeneen ñu bokkut ak ñoom ah. <laughs> ak ñeneen ñu bokkut si tubaab la tubaab la tubaab bi nee na ñoom ñaar ñoo bokk fi ñuy liggéeye mm-hmm. ñoom ñaar ñoo bokk fi ñuy liggéey mais comme duñ gisante nii comme ñoo bokk fi ñuy liggéeyee. waaw après na si kii bi nag da bi mu wàccee da koo woo téléphone. muy dafa jàppoon bopp bi tey bopp bi di métteeg naa nga xam nga affaire yu bari daal. fekk suuf naa ko fi yeeg def ay affaire ya xam nga rek. xam nga rek affaire yi moom mu ngi ne suuf yeeg yooyu. xam nga kon daal yi ba mu budul jigéen ku ko nopp joueur bu ko def entraîneur am tamit entraîneur bi dañu ci déglu. yéen a ngi dégg Cheikh Taye am naa bonne nouvelle <laughs> wala message yëpp moom la. am nga lu mat six. xam nga xam nga bëgguma si kii sax sutura la daal. sutura la waaye vocal yi moom la xam nga. wax dëgg yàlla yéen a dégg kon man lii nag message yoo bi nga ko te di nga ko teg ci àddina kon hmm. dëkk bi tas tas quoi. mais nag xam-xam moo fi ne ku ñëw. Hmm. ku la yàlla nar dimbali. bu dee ci faj la bu dee ci leneen la mhm. di yàlla dina dimbali ñu am résultat macha allah waaw jafe ci xam nga macha allah xëy na du dara waaye xëy na nit ñu mhm. yi na jox mhm. bu dee da nga a génnee sarax bu dee fu a dem dama dem bu dee garab bu ma war a uti ci àll la dama taal sama oto aw ci péage bi dem wuti ko àll bu ma ko mën amee bu ma ko jeexalee ma jox ko jox seen xaalis man du ma tardel kenn. du tardel kenn lépp lu ma war looy dama koy def. ba mat sëkk macha allah moo tax nag yow jotagoo ma joxagoo ma sa xaalis. man nga naa bañ a jot xëy na yónni parce que maa yow dara li yéeguñu ñu comprendre nga xas ba jox xaalis moom moom dina ko dëgg yàlla waaye daal en tout cas képp kuñ kii daal ñun ñëpp la ñuy ñëpp la ñuy wuy danañ jàpp nag dëgg la appel normal waaye boo dina la jot yëpp appel normal yëpp mm, même dama comprendre sama bopp dama damay du ma nelaw guddi mm. comprendre nga xam naa léegi muudu moo may dimbali moom moo moo yor téléphone bi. moo yor téléphone après normal. Hmm. comprendre nga. waaye bu fekkee da ah, kii mën nga baal vocal vocal moom boo ko bàyyee moom. Hmm. fii ba gannaawaat ëllëg ak yooyu noonu man naa kaa gis incha allah. na kon incha allah soobee yàlla léegi ma ne nopp bi day valable ci jigéen mais ab entraîneur yi dafi valable comme joueur buy bëgg neex entraîneur bi. non loolu am na si nopp yoo xamante ne nii da nga koy bu dee entraîneur nga bëgg mu mu ne mu kii la. waaw daa am na woy nii rek. waaw def ko ci ndox. waaw nga sol moo ko. Mm-hmm. bu dee si góor ak góor. Mm-hmm. <laughs> jigéen ak jigéen. góor ak jigéen yëpp. xam nga lu bëree bëri wala ngoro ku doon ngoro gi nii sax kër ngoro yi neexu ñoom neexuñ la daal ak yooyu noonu. waaw ñoom dañ la xaw a kiiwut daal. nga xaw leen soof waaw. nga jël seen def ci. Mm-hmm. boo leen jàkkaarloo dañ lay sopp force. dañ lay sopp macha allah. kon daal kon Bamba Dieng Pape Matar Sarr Elimane Ndiaye kon dégg ngeen li mu wax lii boo ko sëlmoo rek Aliou Cissé moom da yooyu nag mu dem sax yooyu nag am na leneen loo xamante ni nit leneen la si nit ki lu hmm. bokkut ak loolu waaw loo xamante nii xëy na mën a nekk ak samp ci moom samp ok samp xam nga ñaan dafa bëri ay catégorie ça dépend nit ki bu ñëwee kii ñaan lu kan la ak lan la bëgg ak lan la bëgg comprendre nga ak ay rawaanam nan la mel mhm. lan ak lan moo ne ci moom nangam sàngam nga xam yoon bi nga koy awale pour ñaanal la loolu yow sëriñ bi yow mi am xam-xam mhm. yaa xam ki ay buntam fan ah. la gën a mën a gaawe ak li mu bëgg nangam nangam ak li nekk ci moom mhm. lan moo ko mën a dimbali pour mu gaaw ak nangam ak nangam ci saraxu raw xaana moom xam nga dafa bëri détails yu si nekk dal yoo xam ne dinaa ñëwaat dinaa ñëwaat ni dalay li dalay neex nii rek nga defee ko si yoon bi mu bëgg noonu noonu noonu dalay neex déedéet waaw macha allah loolu dafa bëri détails yu si nekk ci ñaan moo tax macha allah dinaa ñaan waxtu beere dab looy tàggoo budul tàggatoo koy sant ko gërëm waaw ku may sant ko gërëm ñëpp rek képp yàlla bind rek soxna si góor jigéen soxna si waaw ñooñu su ma sant ko gërëm sax mhm. <laughs> ñoom xëy na chaque jour sant naa leen ma mën naa wax mhm. Mhm. waaye it wax waxaat xëy na du bëri wax maanaam doo ko defal waayu mbëggeel ci émission bi nii <laughs> nga defal ko affaire mbëggeel tuuti mënuma loolu sax mënuma ko rek wéyal sax madame Konté waaw maa ngi nuyu wax dëgg yàlla jigéen ju baax mm-hmm. macha allah. macha allah yaayu junior moom ma ko tuddee junior. donc mm-hmm. <laughs> jigéen ñi <laughs> di nuyu waa kër gi yëpp macha allah di nuyu képp ka nga xamante ni maa ngi jëflanteeg yow. Mm-hmm. di nuyu waa Amérique waa Sweden waa UK Angleterre. Angleterre di nuyu waa Gambie. ak Anglais waa Espagne. di nuyu fan yee demoon nañ fi. daanaka mën na mën naat sax xanaa léegi de yaakaar naa janvier xuma février daaw laa fa demoon waa Espagne di leen nuyu nuyu Italie France mm, waa Dubaï di leen nuyu waat wax dëgg yàlla Sénégal Gambie Mauritanie di nuyu ñëpp daal fa nga xamante ni France Italie Danemark wa dëgg yàlla Canada mm. Belgium di nuyu ñëpp wax dëgg yàlla client ñi ngi fépp ci àddina bi. macha allah Amadou Diawara France maa ngi koy nuyu bu baax a baax macha allah wax dëgg allah ñoo xamante ñi ngi jëflante ak waa Sénégal gi ay kilifa yoo xamante wax dëgg yàlla ñii si wàllu faj lañ mhm. te kilifa yoo xamante ni allah daal wax dëgg yàlla kilifa lañ fa mhm. nekk daal wax dëgg yàlla ñoo xamante garab yaa fi ba léegi jeex na yokk mi ngi fi yooyu xam-xam ba mi ngi muudu mi muudu moo koy defar léegi moom laa ko jàngal moo koy defar mooy def jaddi mooy def lépp mooy def jaddi dégg ngeen ko kon jot dafa xamuta kii moo tax waaye yokk awra beeg yëpp mi ngi fi yokk ans yokk awra wàññi biir ans ventre plat yi waaw siti ndoxu siti karaw karaw ndoxu siti waaw ak euh, ventre plat mm-hmm. tànk yuy metti waaw maanaam képp ku feebar daal yooyu yëpp daal wax dëgg yàlla macha allah daal képp nga xamante daal da feebar mm-hmm. feebar bi jaaxal la waaw nga dem hôpital gisoo résultat. Mhm. bu dee dëmm la. bu dee kott la. bu dee rab la bu dee jinne la. bu dee def-def la lépp dañ la koy seppil ba mu set wicc. teg ko la de. waaw dama la koy seppil set set ba mu wicc. am na si ñoo xamante ni su ma mbir yi dikkale dëgg-dëgg. waaw barke alxuraan mais nag demal sa kër sàng te man du ma dem sa kër. demal sa kër. sàngam du fekk sàngam ak sàngam boo demee sulli ko gis ko fa. te man xaw ma sa kër fu mu féete danga maa woo rek Cheikh li fi nekk ñun xam-xam dañoo jarul ñu teg yenn si bët parce que dañoo xam li ñu yor mooy la ñu téye ko xam fa nga jëm tamit xam fu ñu jëm pour ëllëg mm. jar na kon ñu asaaloo de ay wax ni suba di wax ay waxi dof yi nii nekkuñ ci yooyu dañoo yor lu wér ñi may jëflantal xam li fi nekk lan la macha allah moo tax kon duñ asala suñu bopp ci yenn yi macha allah. wax dëgg yàlla jërëjëf sëñ Cheikh euh, Cheikh Konte bu baax a baax gërëm nañ euh, euh, waa Allemagne Ousseynou Li. Mhm. Allemagne suñu xarit suñ lépp. Euh, baax ci ñun Mamadou euh, kii nu mu tuddati Mamadou Sow. Allemagne waaw Mamadou Sow sa xarit. Mamadou maa ngi koy nuyu borom baax la wax dëgg yàlla barki la ma yónnee xaalis bu bari daf ma yónnee xaalis bu bari macha dafa baax dafa baax yàlla day jëndal xale mm-hmm. sama doom yëre yu bari la ko jënd sama sama doom macha allah kii sama nit la daal dafa mm-hmm. baax. bu bari yéen a tegtal ay caméra yi ni tourné Ligue des Champions yu ne mu ne mi ngi kii daal yàlla ko yàlla gën a jàppale Ousseynou lii waa Cologne Pierre Issar Cologne Mamadou Sow Cologne ñoom ñëpp nga ñoo nga Cologne Ismaïla Jacob sax équipe nationale Cologne laa ko yóbbu Matar Soare Cologne ñoom ñëpp waa Cologne Allemagne bu baax a baax a baax a baax suñu dëkk ci Allemagne foofu moom damay dem euh, dëkki Allemagne sax toog foofu benn yoon euh, gërëm na ma mami d'enfant France suñu nitu bopp suñu lépp Sayer Fall Espagne ku baax ci ñun fonk ñu bu baax a baax a baax a baax euh, am naa tamit benn waay Assane joueur la Mamadou Ndiaye ku bëgg tegtal mu ngi jël ay vidéo nee na fa muy liggéey ñëpp lay jox ñu tegtal ñaareel ma ko bu baax a baax mu dem ba nga xam ne que joueurs yi africain yëpp mooy doon seen agent bu baax a baax a baax a baax gërëm nañ Fatou Diop Amérique Malick borom ngay me mexe Grèce gis nañ teraanga yi moom ak sponsor yi sama sama mbir sama lépp lu baax lépp mu defaale ko indaale ko Malick Jité Grèce gërëm nañ si Cissokho fonk la trop Euh, fu mu toll di wax sa mbir bu baax a baax a baax a baax a baax ñi bëgg Tektal TV daal télé toll ko fii yoon bu mujj ci biir émission bi 78 397 65 93 78 397 65 93 Cheikh borom produit yu baax yi nekk ci aslem euh, ci wetu école Lyon nga dis ko soxla lu ñu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp gërëm nañ équipe technique bi ñu àndal Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci borom këru Ganga Wade gërëm nañ Petit Sow borom këru Rahma nekk ci ma samba Diop borom këru Maya nekk ci soxna May Diop ci réalisation gërëm nañ sëñ Fallou Mbacke Diop ak soxna Zeynab Diop ak El Hadj Loxo Ndiaye ak Laafaatu ak soxna Faat Jaxat Ndiaye Cheikh Jaxat Jaxat Tektal TV télé tollu ko fi xewal dëkk loraa nga dakk yàlla na yokk résultat yi barke sëñ Fallou